inni la xil

Rabbi tànk yi mooy tànk yi fi daan ñëw bokk yi itam mooy bokk yi fi daan ñëw daan jóge wuro diw ci maamam Ceerno Jibrilu xalifa ba nam ñu daan yónnee itam ñu ñëw noonu la ñu yónneewaat pour ñu ñëw teewal ko fii ci bokkam yi nga xam ne bu ko mënoon moom moo fiy ñëwal boppam ndax kër gi kërama bokk yi ay bokkama njaboot gi ak njabootama nee na mi ngi nuyu bu baax boroom dëkk bi di xalifa bi di nuyu njabootu dëkk bi yëpp waaye di nuyu it njabootu boppam gii nga xamante nii mooy kër sëñ Modou faati Gelonge ñi ci ña cay mag nag ak ñi ciy ndaw ñoom ñëpp kenn ku ci nekk nuyoo na la ni mu la war a nuyoo ndax euh, ñoom ñëpp benn bopp lañu ñu ànd comme nii ko sëñ Modou Lamine waxee euh, ànd ak. sëñ Modou Lamine Ba ànd ak euh, sëriñ Abdoul Kan ànd ak euh, sëriñ Amadou Mamadou Diall waaye ànd ak euh, sëriñ Saïdou Nourou Sall ñenn ñi naan ko Ibrahim ñu ñëw fii ci barab bi fas yéene bokk ak ñi fi nekk li nga xamante ni moom lañ fi def te mooy ñaan ñaanal yàlla ñi ñi dem waaye ñaanal yàlla ñi fi des ñaanal yàlla dëkk bi eh, ñaan yàlla mu sàmm nu jàmmal nu eh, nu bokk ko yéen itam incha allahu ba ba keroog ñuy ba keroog ñu ñuy yewwi ñooy bokk suba gi bu soobee yàlla fas yéene bokk itam ngoon gi bu àndee ak kàttanu yàlla moo tax bi ñëwee rek ñu ne nañ agsi fii ziyaar nuyoo bañ xam ni agsi nañu eh, ci suñu biir kër ndax kër gi bu ñu neexoon suñu wàll ñun ñu tudde ko Wuro Maadiyu te te day wér moom mii dina ci bég woy juram wa dina ci bég waaye sëñ Muntaxa it bu ko déggee dina ci bég ndax xam na ni dëkk yi moom ñaari dëkk yu sore la waaye bokk gi genn kon ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla nañ ko yàgg a dem lente yàlla guddal fan yi wéral cër yi yàlla na yàlla boole nu sàmm bi jaahi rasulillahi indallahi eh, rek bi ngeen àndal ñëpp ñu ngi leen di nuyu leen doll delloo nuyoo ci turu sëriñ Amdi ak njabootu soxna Penda bu yee gépp eh, eh, sëriñ bi nee mi ngi am mbégte lool ci tànk yi ak délégation bi ngeen àndal eh, di tàmbalee nuyoo bi ak siyaara bi rek ci kilifa gi leen yabal mooy Thierno Jibril di sunu kilifa nun ñëpp te nekk ca Ouramadiou doon kilifa gu amug yëg ndax lépp lu mën a xew rek dana yabal njaboot gi ñëpp ak fi teg jóge ci gox yëpp ñëw teewal ko fi eh, sëriñ bi nee na mi ngi am mbégte lool di leen sant bu baax a baax ci tànk yi di jokk bokk gi nu yàlla boole muy bokkuk diine gi ak bokkuk deret gi ndax nu ñëpp noo bokk lislaam bi muy benn ñaaral bi itam ñoo bokk sunu menn maam seyduna Seydina Madiou Mouhamadul Hamme kon nag euh, bu bis bu mel nii amee ngeen def délégation bu tol nii àndandoo ñëw bokk ak nun duñ def lu dul rek am mbégte mu réeréeree ci sunu xol leen dalal jàmm di leen wax ne leen ñëw ngeen ci seen kër ñëw ngeen ci seen biiru njaboot nun euh, ñëpp benn lañ ñoo bokk menn maam kon nag sëriñ bi nee na mi ngi am mbégte lool di leen dalal jàmm ah di leen ndokkeel it yéen ci seen bis ndax bis bi seen bise bis soxna Faati Penda bu yoo seen bise yéen it te noonu ngeen ko xamee noonu ngeen ko jàppee bañ ko tàmbalee ba tey yéen noo yéene ko ànd doxin wi rafet na lool ak ànd bi yal na leen yàlla jox tiyaabay doxuk bokk ak rafetal ñu ngi sant bu baax a baax ci turu njaboot gépp nag njaboot soxna Penda bu yëg yëpp ak ci turu borom dëkk bi mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha ndax ah ku ne xam na Wuro Madiyu ak Touba ni mu demee ah, xëy na fii seen buntu la waaye yéen it ah matal ngeen bu baax a baax kóllëre ndax bi fi sëñ Sidi Mokhtar jógee nii ngeen def def délégation ñoo jaale si jaale Cheikh Mouhamadul Mountakha yeesal wala réew te lépp lu fa mas a xewit noonu ngeen koy defee ah, lii de cey mujj waaye kon ni ngi am mbégte laal bu baax a baax a baax di leen dalal la xamal ñëw ngeen seen biir kër ñëw ngeen seen biiru njaboot ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm ci tànk yi di am mbégte bu baax a baax waaw ah, xanaa li ci des rek ñu bàyyi ba egg ca baas ba <laughs> rek mottali eh, kàddu yi

bi di la